lii daal lan bëggoon ànd bañ a réeroo bokk ndey ak baay takku te liggéey lii daal jàmm la. Euh, vivre ensemble bi ngeen di wax man dama koy dund fa ma dëkk fa ma dëkk chrétiens yi ñoo fa ëpp mooy séeréer yi mais dem nañ ba def ma seen présidente ASC ak yu baree baree bare. Euh, vivre ensemble déjà euh, buy commencé day commencé ci biir famille bi déjà. Ami Balla Tall waaw. saatin ko jël càmma ca dex ka càjjin amul lenn lu muy tricher lu mu def rek dëgg la ci moom kooku mosuma def lu ñaaw ndax dafa bañ dafa bañ ko mere nit nag bu bañ a ko mere mu dem di def ci yooyu nit ku baax la nag ku bëgg li mu bëgg te lu mu bëgg daf koy daf koy daf koy jël engagement ci boppam ba ñëpp xam ne def na ko sama doom yëpp moo leen génte mook ndeysaan ngërëm si yàlla si yàlla na ko yàlla yërëm te ñuy man su lay jéem kon yàlla nañu yàlla boole jàmm rek te lafal lu cat deux mois avant sama yaay di gaañu ndey